di ziare jullit ñëpp di ndokkeel jullit ñëpp di bala àq jëm jullit ñëpp di ñaan suñu borom mm, dëllee sowaat ko ay yoon yoon te at mu nekk ànd ak yokk ak naataanga ak ngërëmal suñu borom li nga xam ne moo rëcc tam ci at mi jàll suñu borom jéggalu ko di leen ndokkeel yéen seen jëmate muy di ndokkeel eh, Cheikh Alioune Thion ci jëmoom te di ko gërëm tam ci taxawaayam ci liggéey bi nga xam ne seq nañ ko te fu mu toll di ci gën di doon jàmbaar di ci gën di rafetal ñaan moom itam suñu borom yokk ko moom itam at mu nekk rek mu gën a yokk yëg ak yokk ci boppam yëg taxaw te feex ci boppam ànd ak ngërëmu sëriñ bi ak mboolem ñi nga xam ni eh, ay natt ngoom lan te di jaar ci ay jéegoom ñëpp ñu ngi leen sax di gërëm di sant di ndokkeel jullit ñëpp itam ak ci réewu àddina bépp fu ñu si mën a nekk ñu ngi leen di ndokkeel ñoom itam di wax kullu aamin wa antum bi xeyr di am mbégte bu baax nag ci laaj bi nga laaj ci at mu bees mi ñuy jublu ak at mu màggat mi ñuy génn am at nag boo koy génn la ca mat a seet mooy la ca baax ci ak dund ak la ca rafet ci ak dund at mu bees li ci mat a mooy li baax ci ak dund li ci rafet ak dund ko jullit bu nek war nga loo wess nga set ko chambar ko ba xam la nga ci def baxna am safan bala bu fekke la nga ci liggéey lepp ci at mu lu rafet la nga gën ko yok ci at ma nga jëm bu fekke am na ci loo xamne ni ab safaan la nga di ko moytandiku ndax sunu borom kat bu yomal xiyam duñu kenn ana sa ba buy laaj day tàmbale ci 15 wala mu tàmbale ci ab tiers tiers moy li ci ginaaw seconde kon kenn ku nekk li ngay defar nga koo seet ngir sa digganteeg sa borom maa ngi dëkk ndokkeel jullit yëpp di képp ku bëgg Sëñ Tuubaa di ndokkeel tamit groupe Lamp Fall FM ndax ñoom de mënu ma leen a fay. kon te te xibaaru bu lislaam nag mooy xibaar bi gën ci xibaar yi te te te Lamp Fall FM ñëpp mën nañoo seede seen bëgg Sëñ Tuubaa ak seenu taalibe moom àdduna bépp mën nañ koo seede loolu moom dama koy wax ci kaw. di leen sant bu baax di leen gërëm di ko tàmbale ci kilifa ga sëñ Aliou Thioum ba ca gëj gën a ndaw mënuma suma ma soñoon damay tudd kenn ku nekk sa tur siyaare ndax ñoom ñëpp baax siyaare la ndokkeel la ci bis bu tedd bi ci at mu bees mi yàlla dafa leen ci jàmm lu yees peq. di fas yéene ñaan yàlla at yi nga xam ne ñu ngi koy jeexal ñu jeexal ko ci jàmm ak salaam at mi nga xam ne mooy jublu di at mu bees jullit yi ñu dugg ceeg ñu dugg ceeg bisimillahi rahmaani rahim jaxal ko alhamdulilahi rabbil alamin muy loo xam ne nag jullit bu ne war na ko jàngat bu buñ egsee fii xam ne ab am at wéy na ci sab dund nga war a xool at mi moom nag li nga ci li ci def ci lu baax ak ci li nga def ci lu dul noonu ñu ngi ndokkeel bu baax nag làmp ci lii ñuy def ndax ndax ñu Sénégal ak réew yëpp moom ati tubaab yi la ñuy màggal jàpp ko jàpp ko sunum at te ñun xijriye ñun ay jullit atum xijriye lan war a topp mooy sunum at mu bees muy tam xarit yu tàmbali te gis na ne réew mi moom janvier lañ gën a fonk te atum jant bi ñoom moom la ñuy topp te loolu moom tubaab yi ñoo ko moom waaye ñun ci weer yi atum xamar yee la ñuy topp booba nag ku ci topp ko ne da xam ne muharram bi di dugg si mu ñu koy waxee tamxarit boobu mooy si ren sam at di tàmbalee kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay làmp nga xam ne yéen fexe ngeen ba at mii ngeen jàpp ko seen at di ko ni nga xam ne Sénégal gépp bàyyi woon nañ ko yéen ngeen di ko dundal ñu ngi leen di ndokkeel bu baax te leen sant bu baax baax ñu ngi ndokkeel jullit yëpp itam ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk at mi te ñaan ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ngeen di ko alhamdulilah itam di ndokkeel waa Lamp Fall bis bii ni ngeen koy màggale ba réew mépp xam nañ ne léegi mu xaram ñu bari xamuñu ko woon ñu bari itam dañoo jàkk ne tamxarit fukki fan yi ci la bis bi ñu woowee tamxarit ci la tàmbali ci démb noonu bu at mi am fukki fan moom la ñuy woowee tamxarit waaye bis ba njëkk ci weer bi nag moom mooy mooy ci la at tàmbali kon nag gis naa ne làmb yéen liggéey ngeen ba ñu bari léegi ñi nga ràññee nañ loolu ci ràññewoon loolu di leen gërëm di seen seen télévision bu fi fa nag at maa ngi jeex na kenn ku ne delloo sa xalaat ci lim weesu ci at mi ndax dundal na ko lu ci nekk lam ci wara a dundal ci ay uh, jëf yu baax yóbbal na bisam ay bisam ci lim leen war yóbbalu ci jëf yu baax ndax liggéeyal na ci yàlla liggéeyal ci l'islam liguel ci sëriñ bi lo xamne li dana fess jamono ja nga xamne mom la tassel lolu mom lañuy jëk soññ di fatalé nga ni euh noni rek la aduna di tax di doxé serigne bi nak yal na nu ko yàlla fayal eh, def na ñaan gi moom lañuy ñaan ci bu at mi taroo ci bis ba ci jëkk def na ci ñaan goo xam gi ñaan gu yaatal la mm, li ñaan ci at mi lépp ci ay xéewal def na ko ca li ñu war a dàq ci ay balaa yëpp it wax na ko ci nga xam ne ku jàng ñaan googu rek doy na kaaraange ci at mi lépp ñaan googu nag boo demee ci téere bi ñax addi addi yetu sanati danga ko ca fekk